si Kambaaw bii mooy sama troisième combat. deuxième victoire lay doon bii baax. Ah. bii mooy deuxième victoire. moi s'il n'est pas devant de erreur tey. Ah. tey ma droit def erreur. jamais de la vie. bar sëñ Bamba daa am si lum jóge du ngaaxa yàlla dafa xañoon. te yàlla dafa war a may. léegi yow am ndam nan la war a. nii léegi ma wax la tegal la dossier bi. ayca. Ah, <laughs> ndeysaan mbokk yi arbitre bi sifflé na dox ci diggante Tapha bu ndaw ak caatu Senzala ñu ngi noonu di lewaatoo ñoom ñaar Tapha bu ndaw caatu Senzala <laughs> ndeysaan ña ngay lewaatoo ay waay Tapha Tine caatu Senzala ndeysaan ña ngay lewaatoo Tapha Tine Thiatou Sanzala Tapha Tine Thiatou Sanzala daw na jëli ko Tapha Tine Thiatou Sanzala ndeysaan ñu ngi noonu ña ngay lewaatoo diggante la njool waaye paa ndaama njool ak ku dugg dóom ndeysaan ñu ngi noonu Tapha Tine Thiatou Senzela lamb ji tey nar naa yëngu bu ambiance bi ñëwee ba baafuli tàkk ba mbayang lu ngi way sàjj dina garaaw Tapha caatu Thiatou Senzela Tapha Tine Thiatou Senzela Tapha Tine mooy njool mi daw na Charles Sansela ko Tapha Tine plaqué ko lan moo xew Franc dugg si na ndeysaan Charles Sansela ndeysaan Franc mooy dugg si noonu Charles Sansela ak Tapha Tine bu ndaw Tapha Tine Charles Sansela ñu ngay xeex ku yaa ngay jolli lan moo nar a mbot na ko génn nañ ñooy xeex waa lii lan la. mu téye xale yi. bu ñu commencé nag xeex kenn mu leen at. Tapha Tine Thiatou Sansala. Tapha Tine Thiatou Sansala. waat na mbokk yi Tapha Tine Thiatou Sansala Tapha mooy njool mi Thiatou Sansala moo la féete gos ngemboo ngemb lu weex li mbokk yi ba tey ñu ngi noonu di lewaatoo Tapha Tine Thiatou Sansala Tapha Tine Thiatou arbitre bi nee na Thiatou Sanzé laa taxawal arbitre est mën naa taxaw bu dee dañ ko nar a dóor est-ce que war naa mën a taxaw ndeysaan na nga noonu soq tàllal na loxo bi mais mobilisation bu garaaw la soq def tey ña ngay xeex soq mbooloo mi mu indi tey musu koo indi ci stade bi ba làmb dee làmb ba tey tey li topp soq ci mbooloo ci supporter ci pikir musuñoo toq topp soq ci làmb ña xeex ña xeex mbokk yi jàppante nañu caatu sanzala ndeysaan jàppante nañu caatu sanzala Ndeysaan Caatu Senzela Caatu Senzela ngi noonu ak Tapha Tine bu ndaw Tapha Tine Caatu Senzela mbokk yi cey <laughs> làmb Tapha Tine Caatu Senzela ñaari xale yaa ngi noonu Tapha Tine Thiatou Sarr Tapha Tine Thiatou Sarr jàppante caxabal na ko ñu ngi koy wicc yegg nañu suuf jógaat daan Tapha Tine Thiatou Sarr lamb jaa ngi noonu ndaysaan Tapha Tine Thiatou Sanzala ñaari xale yaa ngi noonu ña ngay bëre ndaysaan ña ngay bëre ndaysaan tey jàppante bi combat bee ngi bëgg a de jàpp na ko Tapha Tine bëgg naa jàpp Tapha bëgg naa jàpp caatu san sala Tapha Tine Tapha Tine caatu san sala ña ngay bëre laysaan ña ngay ñoom ñaar yegg nañu suuf mbot doo ci génn Tapha Tine na Caatu Sansala daan na ko Tapha Tine na ko ba pare bugg koo koŋ yëkkati na loxoom Caatu Sansala daan na Tapha waaw waaw Tapha Tine na Caatu Sansala <laughs> waaye lii Tapha Tine na Caatu Sansala